ne mi ngi jégalu nag ci jataay bu xat bi ne fii ngeen nekk tàng na lool ndax xataay bi moom waaye lépp nag ne bisub sëriñ tubaab bi rekk a ko waral te sëriñ bi ne bis bi nag cosaan la ak coono la woon akum nattu ak fitna kon buñ demee ba pay gi yegsi lépp ànd ak jàmm ak xéewal ne loo ca daj rek ne delloo ko ca foofa ne dégg nañu kàddu yi bu baax a baax bi ne mi ngi leen di nuyu yéen ñi fi teew yëpp ne di nuyu doomam ji di biraan di ko yóbbante ci waajuram am nuyoo bu baax a baax ak cant ak ngërëm ak mboolem ñi màndal ñëpp ginnaaw bu limee day juum waaye ñu ngi tudd Alaaji Asan Géey ne yàlla def na xam na ko bu yàgg ne yàgg na lool waaye nit ku baax la di nuyu Abdou Aziz Mbay mi ne nga moom itam taxawaayam ci Tiwaawoon ne ñëpp xam nañ ko mooy mooy taxawaayam ci Tuubaa rek

rafet lu seenu liggéey ci màggal gi màggalu Tuubaa gi ndax at mu jot ngeen def ci yitte ju kawe ba ñu jàpp ni lii kenn mënu ko woon bu déwénee ngeen yokkaat ne lool nag lu rafet la waaye xam nañ ni ñi ko jiite seenu bëgg-bëgg ci dëkk bi ak ci yoon wi loolu rekk lañuy ñuy seere moo ne Cheikh Ahmadul Bachir ne nag moom diggam ak yéen ne dafa yàgg ne ba yàlla defee autorisation bi jafe 2008 ne loolu ëpp na fukki de du benn bis ne Cheikh Mamadou Lamine Baara booba mooy xalifa général de moo ko yónni ci président Abdoulaye Wade wax ko ay kàddu lu jëm ci loolu ma dem fa mu wax ko yu baree bari yi taxoon munu koo def te lu ci ne doyoon na ngant ci moom waaye ca mujj ga munu ko sëriñ baara daal nee ko man daal Ablaye Wade wër sëriñ bi maa ñaan dara ma di ko gàntu danaa gëm rek def ko xam naa baaxul ci man sax waaye dinaa ko def moo yàgg gëm ne wax yu bari yi nag la ko waxoon booba yoo xam ne laajut ñu di ko waxaat fii kon yàlla def na bu ngeen gisee kër ba mu ubbee yuusu moom la ci njëkk a gërëm ne looloo ko waraloon ne alaaji Mansour Mbaye xam na ci lu bari kon sama digg ak yéen du démb du tey waaye démb la waaye boobu ba nëgë nag lépp lu xew ci yoonu murit ne du ngeen ci xaar kenn du ngeen ca fayu dara lépp da ngeen koy def ngir yàlla ak jëmi sëñ Touba loolu nag sëriñ tubaa mi ngeen koy defal am nag pay ne 2012 itam Masaalikal Jinaan booba jumaa ji yëggagut yéen a fa njëkk a def direct sa julli ga ne loolu lépp nag ab cër la màggal gi itam daaw ñu bari ñimewuñu woon télévision yu bari dañ doon xaw a sax wër di nëbb la ñuy def ndax fi réew mi toll waaye yéen seen fit ak seenu bëgg sëriñ Tuubaa da ngeen a gën a engagé daaw moo tax na seenum xel dal bu baax te xam ni loolu defal leen ko defal leen ko taalibe yi ne Serigne Touba ngeen ko defal ne Serigne Touba nag dana am suñu kilifa gu baax gu daa wax ni lépp sëñ Bamba xar baax la ne xar baax nag boo ko bëggee xam danga koy jaareel furul baax mooy la xewoon daaw ci màggal gi ñëpp wax ni li joxe wéradi gi mooy ñi dajaloo waaye nu sunu ngëm ci sëñ Tuubaa sunu bakkan jaralul ko fan ci neewoon rek lan fi nekkaat tey waaye dara lan wàññiwul nag moo tax sunu borom wax ci alxuraan ni maa kaana da koy waxaat ci olof yàlla nee na ah sëñ bi ne li mu waxoon léegi ci aaya bi ne yàlla nee dama leen di seetlu waaye duma leen wan ni nag dama leen di seetlu ne aaya bi li ko tax a jóg damay xool baxam xam yéen seen ngëm dëggu wala gëmul ne loolu sax la laa def ci xare yi ne kon loolu ki gëm fam ko teg ba tax du ko wàññi dara nekk ca pasteefam yëggut bu ko jéemee rekk du sotti bu ko jéemee roy du sotti ndax eh, Cheikh Madul Bachir ne yéen daal xam ngeen ni ca jamonoy Serigne Touba ne bi sëriñ bi nekk ci te booba dañuy daw sëñ ba eh mbooloo mi ngeen déglu sëriñ bay wax ngeen déglu lu ngeen di wax sëriñ bi wax ngeen di ratatati ne booba dañuy daw sëñ bamba kenn du ko jege nee tubaab yi booba tubaab yi kat condition yi ñu bala faa kenn dem da ngay ñaan autorisation balaa kenn dem sëriñ tubaa te nanguwuñu ñu fekkente fa ne lépp nag ngir bëgg a fay mission Serigne Touba nga ngeen xool nag yéen booba ak tey mat na téeméeri at ne loolu 1906 la woon 6 wala 8 ne téeméeri at yi kon tegal na nga xool ña doon jàmmaaroo Xaadimu Rasuul كان و... كان ووتولين كان تلتولين كان خبرتو فين نخول نك ووت سرين توبا بي فيم طولتي لولو نك كوي خلاتني اي خلات اي ولا اي وخ ولا اي بخي من نتا جيختال ني جيفانديكو سام ني جيفانديكو سام خل ci soppi xeli nit ñi yàq image wu yoonu murit duñ julli duñu woor seen dëkk ba kaaba la dañoo am seen sam-samu bopp seen màggal gi mooy seen añ makka te murit yëppay dem makka kon la ñuy wax dara mu ca waaye yooyu yëpp nag li taxoon ñu di ko wax bëgg image yoonu murit yàqu ci biti

du ca wàññi dara loolu moom sëñ Tuubaa ne suñu borom ak ko defal de kon yéen waa TFM bu ngeen amee tawféex di am yitte at mu jot lu ngeen ci def ngeen yokk ko li feeg yéen a koy def nag ngeen xam seen télé bi ca kanam la jëm lu ngeen ko gën a jiitale daal sëñ borom jiital leen. ndax yalla jiital sëriñ bi mom waxal na bopam ni yalla ko yekati te kenn mënu ko soufé kep ku ko bëgg a nak yow la yàlla suufeel kon nak fofu rek lañ nek jërë ngeen jëf sëriñ bi ma leral la sa doom jidi Abdou ndjay